di fàttali nit ñi rek ni xeex moom ci bëgg jàmm la bokk ku bëgg jàmm da xeex soo ragalee xeex wala nangoo xeex rek soo moytuwul ñu nappaaje la nga toog donc euh, c'est cette année-là que nous sommes en train de préparer <coughs> ñu fas yéene waxtaan ak yéen autour d'un thème principal muy rapport Cour des comptes muy activité wu de manière subsidiaire donc muy activité wu Yewwi Cour des comptes ñi nga xam ne ñoo ci waxtaan ak yéen dañuy joxe ñun suñu position en tant que politique les sachants les pratiquants ku nekk wax nga ci sa xalaat mais liñ ci bëgg a jàpp rek mooy que ni Covid bi je n'ose pas dire que le Sénégal a été étêté mais nous avons perdu beaucoup de valeurs sûres ci kilifa ci njiit ci mbokk ci xarit ñu ci bari ci feebar boobu la ñu demee le rapport de la Cour des comptes démontre que bi ñii di jooy bi ñii di feral seen rangooñ bi ñii di mettitlu am na ñu doon yaataay yu mbéy ak euh, Goundandane loolu la rapport bi wane du leneen que na mu waroon demee demewu ni ñun ñi amoon occasion jàkkaarloog président Macky biñ koy door ba mu wootee ku nekk ci ñun entre autres question ak mise en garde ak suggestion conseil dañ ko wax ni ko moytu ba lii nga xam ne réew mi yëpp ànd na ceeg yow pour ñu doxal ko ngir li jëriñ askan wi nañu éviter lii nga xam ne mooy li xew tey on l'a mise en garde on l'a averti on lui a suggéré de faire en sorte que mu bañ a doon lii kersa la qu'on malheureusement raison sur ce qui nous traitait de sceptiques ou d'oiseaux de mauvais augure lii lañ doon bañ tey Parce que l'élan unanime, l'effort surhumain que chacun de nous a consenti à Tchamouchimouchi. Et ce qui révolte, ce qui révolte, en tout cas moi je suis heurté par le fait que les autorités gouvernementales, les responsables de la majorité se mettent à dire non, tant de francs la tant de sous la Par rapport ak li mu toll lépp lii moo ci am problème loolu kersa la waroon nañ ko rus waroon nañ ko jomb parce que nit ki suñu la artoo te demagoo mënoo am benn système de défense bu dul ni temps la par rapport à temps pour moins que ça des gens croupissent en prison pour moins que ça des gens ont été déshonorés traités dans la boue traînés dans la boue safla et ñoom ñu naan non lii dong la lii dong boobu ku mel ni man il est heurté par ça je pense que li ñu wane rek mooy que nit ñi ils ont atteint leur limite et que seetatuñu lu rafet ak lu baax lu leen fi yàggal rek moo leen intéressé et qu'ils essaient de justifier les l'injustifiable moo tax suñu waxtaanu tey ci loolu la jëm di massawu ci njeexitalu at mi tous les prisonniers politiques tous ceux qui sont morts dans le combat politique ñu di leen ñaanal yàlla ñu xippee aljana mais suñ defee référence ci loolu c'est pour flétrir <coughs> l'attitude de ce gouvernement qui n'use que de la force de la violence pour nous gouverner et c'est important et c'est désolant que ñu du bañ fàtte ñi nga xam ne ñàkk nañ seen bakkan ñu bañ fàtte ñi ci kaso yi kenn ñemeetul wax léegi tëj la rey la tëj rey tëj rey cette mandature kenn du ko fàtte kenn du ko fàtte et vivement que 2024 arrive pour que ñu passer à autre chose en tout cas kàddu yooyu la ñu bëggoon au nom de la conférence des leaders bi rafetlu tey gis ngeen suñu ginnaaw ni mu taaroo jigéen ñi xale yi parce que le combat pour Yewwi Askan Wi se poursuit il est permanent c'est pour servir la population c'est pour servir askan wi du pour Yewwi ko non Yewwi askan wi mooy Yewwi boppam mais ci combat pour Yewwi boppam ñun dañu bëgg a nekk à l'avant-garde jigéen ñaa ngi fi xale yaa ngi fi yeewu askan sa structure pour pérenniser son combat parce que wax nañ leen ko du élection yi moo tax ñu ànd li ñu tax ànd mooy xool nu ñuy liggéeyale askan wi liggéey ngir askan wi liggéey ak waa askan wi te loolu y a de calcul y d'action ponctuelle non dañu bëgg ànd defandoo lépp di xàcceendoo di dóorandoo yàlla na ko yàlla mottali C'est la raison pour laquelle je vais donner la parole à Bassirou Samb qui va parler au nom des jeunes de Yewwi Askan